Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag Euh, ni ngeen xamee woon Ndox TV ak Alxaaji Mbengue Diop mooy ruq-ruqaan yu sew yi nga xamante ni ñooy régler problème yi doomu adama yi moom la leen Ndox TV ak Alxaaji Mbengue Diop di régleel la mbokki nag tey dama gis sunu génn góor gu dëkk fii ci Tivaouane koo xamante ni Tivaouane la jànge baayam jàngal ko li mu yore mu jàng ci Seydi Mouhamadou Mansour borom daara yi lépp lu Seydi Mouhamadou Mansour borom daara daan def daan na ko confié mu ciy dugg mbokk yi tey kooku laa dégg ci Tivaouane muy régler ay problème ba mu régler régler ay problème fii ci département de Tivaouane ak addina bi léegi mu mat fanweeri at mbokk yi nag may wax ni képp koo xamante nii rek bëgg nga lu baax tey sama góor gaa ngi nii mbokk yi asalaamaaleykum sama góor gi maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax euh, waa àddina nag laa lay wan dama lay laajte di la laajte ba dégg la ñu wax ma li ngay def ci département bi wax ma li ngay def ci àddina bi wax ma yi ngay bind ak njariñ li mu am tey ma bàyyi sama liggéey ñëw fi fas yéene waxtaan ak yow bëgg nga dimbali askan wi te yàlla tax ndax fi mu nekk nii àddina jàqu na nit ñi tiit na nit ñi jaaxle nañ ci wàllu catak ci wàllu làmmiñ ak ci wàllu liggéey ak yu mel noonu li ñu bëgg rek mooy nga dimbali ñi nga xamante ni ñooy waa àddina wax leen mbir mi nan la demee ak fan la commencé. asalaamaaleykum. sëñ bi ñoo ngi leen nuyu di la fay bu baax. Mm-hmm. ñaan yàlla mu jàmm ñaan àddina bi yal na yàlla defal jàmm defu leen ko defal ko julli yëpp teewaan na ku fi nekk boo la nga war a jëkk wax bala ngaa wax mm-hmm. mooy nga gërëm ki fi yàlla teg mm-hmm. mooy xalifatul am mm-hmm. taabiri tijaani di sëriñ Seydi Aboubacar euh, Mansour ibnu ibnu Seydi Alxaaji Mansour ibnu Seydi Alxaaji Maalik nga xam ne mooy xalif général di tijaan tey nga xam ne teguma ko fi. tegu na ko fi tegu boppam yàllaa ko fi teg. Mhm. ñoo ngi koy ñaanal yàlla. suñu mbay si ko si yàlla may ko fan wu gudd ak wér ak rakkam yëpp. Mhm. amiin yaa mhm. lépp lu mag ñi naaloon ci tariixa bi. ci kër gi. te sottiwul. yàlla na ko yàlla yegg ci xilaafam gi. amiin yaa rabbal ñun nag taalibi lañu. ñu nekk ci kër gi itam. di fonk njabootu Seydi Hadji Malick yëpp. waaye nag am fu ñu féete nag. Uh-huh. muy sunu baay. Mm. du sunu sëriñ. Mm. du sunu xarit di Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour. borom daara yi borom daara ji borom daara yi borom daraa ji borom dërëm yi moom moo ñu jàngal. li mm-hmm. jógee nag ñun ci lu ñu jëm. Mm-hmm. ñi mu jàngal ban ñi ay imaam lañu. Mm-hmm. ñi ay borom dëkk lañu. ñi ay chef de quartier lañu. ñi ay jàngalekat lañu. waaye ñun nag di ci wàllu pajum cosaan. paj nag. paj nag moom. feebar yëpp ay wér. feebar yëpp ay wér. bu lu wér amul. bu dee cat day wér bu dee liggéey day wér bu dee seetaan day wér bu dee bët day wér bu dee jinne day wér hmm. bu dee rab day wér hmm. lépp loo xam dal nit am na garab bu ko mën a faj wala ñax bu ko mën a faj wala aay alxuraan bu ko mën a faj wala am na turu yàlla bu ko mën wala talsam bu ko mën wala euh, xaatim bu ko a faj hmm. waaye nag nan nga koy xamee da koy jàngi boo ko bëggee da koy jàngi da nga koy jàngi boo bëggee xam ni ñuy faje cat da nga koy jàng boo bëggee xam ni ñuy faje rab da nga koy jàng boo bëggee faj ni boo bëggee faj ni ñuy faje liggéey da koy jàng boo bëggee nit ku ñu um ku ñu doo am jëkkër bopp buy métti hmm. yu hmm. buy métti lépp loolu nee na am na garab ko mën a faj am na aay alxuraan mën a faj am na tur yàlla bu ko a waaye boo bëggee di faj nag da ngay jàngi garab hmm. boo jàngu garab mënoo faj jàngu garab mooy lan garab mooy xobi garab xasu garab reenu garab doomu garab mooy garab loolu lan la jotee alxuraan ça n'a bokkuñu dara ah kay mooy jëkkër garab mooy jabar boo bëggee faj dëgg da ngay boole alxuraan ak garab six mille six cent soixante-dix ay alxuraan yëpp benn bu ne am na xobu garab mu communiqué six mille six cent soixante ay alxuraan benn bu ne am na xasu garab mu communiqué six mille six cent soixante ay yëpp benn bu ne am na reenu garab mu communiqué hmm. boo tax nag boo xamul garab mënoo faj hmm. mën ngaa ñaan nag jël sa ñaan ca Amérique wala ca France wala Italie mu am wala la mu bëgg mais nag nit ko feebar te leen laaj kooku hmm. garab ngay wuti garab moo ko mën a faj garab moo ko mën a faj te kuy faj te jàngoo garab da ngay xaru sëriñ buy faj te jàngoo garab lee nga dee wala nga ñàkk-ñàkk gu wow koŋ da ngay jàng garab wala nga bàyyi faj jëm ci ñaan te bañ faj ñaan ak faj du benn de hmm? déedéet ñaan ak faj du benn am na ñuy ñaan di faj te mënuñoo faj am na ñuy faj di jéem a ñaan mënuñoo ñaan boo jàngul ñaan jàngoo faj ma ngay bem boo ñàngee ñaan kese yemal ci ñaan bul dugg faj boo jàngul faj kese kese bul dugg ci ñaan bokkuñu amul nag benn turu yàlla ci àdduna faj amul benn garab bu dul faj te gën ñi dañuy fàtte ñax hmm. ni ñax yi ni garab yi faj noonu la ñax di faj mbër boobu garab day faj mm-hmm. mbante day faj mm-hmm. las day faj mm-hmm. tulukun day faj ngungun day faj mba ñeer day faj yooyu ay ñax la yoo xam ne du garab lu mel ne ndinaat lu mel ne xadd yooyu day faj ay ay ñax lañ bokkul ak mango saab-saab yooyu bokkul nga defee nag loolu ah, ñu gërëm itam suñu xalifa muy xalifa Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour di sëriñ Cheikh suñu Cheikh Tidiane bu sëriñ Babacar bu sëriñ Mansour si soxna Fatou Sy Mansour hmm. ndax nun xalifa gi ñaar lan cam daan cam seen nijaay suñu Babacar Sy Mansour suñu nijaay la hmm. ndax ñun suñu Mansour suñu soxna Fatou Sy mooy suñu yaay hmm. di gërëm Serigne Cheikh bi sëñ Mansour suñu mag suñu di gërëm Serigne Habib Sy bu sëñ Mansour di gërëm Serigne Seydi Jamil bu sëñ Mansour Moustapha Sy di gërëm Pam Serigne Pam Malick di gërëm Umu Xayri yaa Ayda tabarakallah Safi suñu rakk nit nag faj nag mooy métier mu gën a daal ci àdduna hmm. ak ndaw teel a am wërsëg ñaar yi gën a daal ci àdduna mooy faj ak ni ndaw lu teel a am wërsëg ndaw lu teel am wërsëg ban danger moo ci nag ban danger mooy gaaw a dee ndaw lu teel am wërsëg boo amul gàllaaj amoo hmm. ku la protéger da ngay gaaw a dee wala nga am léegi ñàkk léegi wala nga am léegi dem am dem bàyyi fa am nga wala nga am am nga dem bàyyi wat te benn baaxuñ da ngay ñeme sarax ñeme ñaan mooy garanti bi mooy garanti da ngay ñeme sarax ñeme ñaan bi ay sarax na bu mu ci doon bu ñu la wax rek na ko def boo dul nag saraxe dangay ngay xar ndaw teel a wërsëg du sang du saraxe ku dul sikkat doo suur doo saraxe doo gudd fan boo ko defee dama ne ku dul sikkat doo sangu doo boo amee cinquante ans boo paas cinquante ans sa xele wàññi sa wér day wàññi waaye booy sikkat di sangu di suur boo amee juróom fukki at hmm. sama xel day yokk sa wërsëg day yokk sa wér day yokk léegi li ma gis téere yi nga bind nii lii lan la nii. kaay a mbokk yi xam naa ko ni ñuy def mooy dañuy dugg ci biir waxtaan ak moom mu wan li nga xamante ni mooy garab yi euh, mbokk yi comme ni ma leen koy waxee ndox ci yi ngi nii fépp foo xamante nii falalu garaaw nekk dinañ fa dugg wan leen ko gis ngeen. pharmacie lii pharmacie la fi mu nekk nii. fii. waaw garab ah. ak imaamul akbar moom laa tuddee xay. Mhm. xay mooy imaamul akbar mooy garab gi gën a gën a xam xay mooy nga xam ne monde bi mhm. ñëw ci màkk. Mhm. xay na ñaar ndoxu ndoxu ndoxu barkeelu am am. ci église yi. boobu xay nañu sang boobu. xay xay. moo fi jiitu alxuraan moo fi jiitu Bible moo fi jiitu lépp. donc mm-hmm. buur bu ñuy tabb buur wala kilifa xëy nañ la sange mm-hmm. xasu xay waaw mm-hmm. xëy na garab la ko gudd fan la garab gën a gudd fan ci àddina ko na garab goo ne monde bépp ko xam kii moo dem xam nañ ko xam nañu tudd xam nañ nekk kuy naan xëy da ngay gudd fan kuy eh, la jàpp boo gisee kaasam kaasal eh, a gudd fan di def yàlla bu neen xëy mi ñu naan ak sangoo moo tax da loolu dañ jàpp caddu la jàpp kuy naan xëy la jàpp kuy sango caddu la jàpp kii mbante la. mbante maari. mbante dina boo ko def hmm. garab nga am kii xobu niim la. Hmm. luy faj cat moo ci gën a gaaw wala seytaane. Hmm. seytaane bari na ko damm seytaane mën damm. seytaane damm tànk damm loxo. seytaane mu ci gën a gaaw. kii dina faj cat xobu niim. dina faj rab. boo xamee ay alxuraan yu muy ànd. ci garab la kii ñax la du garab. ah mais ñax yi ngay wax benn bu ci dafa am aaya alquran bu muy àndal. ñax boo gis aaya boo gis am na lu am ala ah, ah, ah, xay. 100 mhm. mhm. am tur yàlla tolloo. Mhm. niimaa 101 la. bu ko wàññi booy booy wàññi amin boo gis am na siddéem bii xobi siddéem day génne catu nit di génne catoo nit noonu di jinne catoo nit. moo tax mbëri làmb yi nit ñuy def la ñëpp war a def hmm. mbëri làmb yi ni ñuy def hmm. toog xëy sango juróom-ñaar hmm. sax kilifa warul xëy te sango juróom-ñaar fukki saako lu mu minimum par bis par bis soixante-dix saako kilifa gaucier wala xëy génn nekk war naa sango soixante dañoo am chance mais amuñu gàllaaj Sénégal xam nga fa am gàllaaj mbëri làmb yi képp ña fa am gàllaaj li ñuy def la ñëpp a def di xëy sango juróom-ñaar fukki lu minimum la minimum dama juróom-ñaar fukki saako kii mbër boof la mbër boof mbër mu boof la ñu xob bi garab la reen bi garab la bant bi garab la doom bi garab la hmm. mbër boof mën naa faj ay téeméeri téeméeri jàngoro kii euh, dix-huit saafara dix garab la yoo xam dix garab yoo xam ne dafa am saafara bi ànd day faj cat day faj rab day faj liggéey day faj seetaan day faj bër dañu koy sàngoo dañu koy naan dañu koy suuroo mais yi ngay wax nii bi nga nekkee xale da nga koo tarbiyu jàng ko ba mokkal ko ci sa baay wala ci kan. bi ma Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour jàngale alxuraan ba pare. Mhm. jox ma Baye Abdou Sarr. tamit mhm. mu jàngal ma alxuraan. Mhm. ba ma alxuraan damaa jonno lii ñu séeréer lañu. waaye kat ba dafa xam ne lépp lu ñu ne moom nga nga nga bañ ko danga caa gën a ñaaw man séeréer laa ci côté baay. waaye lébu laa ci côté ndey. maa ngi dëkk Jandeer. ab lébu laa alama ab lébu. lébu nag xeet la woo xam ne kenn mësu la ñuy def. dañoo dëgër te bari woon xam-xam léegi dañu bàyyi nit ñi ba lébu yi mel ni amatuñu xam-xam hmm. li commencé euh, kër ngir ndaw kemaay ca déew euh, toor jandeer ba kenn nga dem tubaab jalaw ngor wakkaam yof lépp soosee ko moom lébu yi ñëw jëlee foofu yóbbu leen ak xam-xam lañu fi génnee génn soos yóbbu leen Casamance ñuy dem ba Gambie ñuy dàq la ba ba gën a Bissau léegi lébu yooyu nag ñoo jëloon soos yi jëleen foofu ñëw sanc fi jandeer sanc toor sanc mbijëm lébu sanc kër ngir ndaw sañ ca Ngor Wakaam Yoof Cambérène Bargny loolu ñoo ko sañ mm. dan xam-xam boobu ay amoon mm. nag ñu naan ko docteur mm. docteur mën naa ko juróom mais garab la boo xam ni moo ëpp doole ci garab yi ñu xam fii ci Afrique ah garab gi moo tudd docteur moo tudd docteur am nañu ko naan sointu waaye garab gi mu ngi am Cameroun Togo Benin Niger Nigeria ak ba ba Côte d'Ivoire ñoom ndoole lañu ko tuddee ndoole loolu kii xobu saab-saab la saab-saab mën na ko ñetti téeméeri jàngoor saab mhm. boo ko lëbbee werka ci kër mën mhm. na ko ñetti téeméeri jàngoor maa ngi koy digal mag ñëpp képp kuy naan saab-saab da nga gudd fan mhm. képp kuy naan saab-saab képp kuy naan saab-saab suy buñ di wadd naan saab-saab doo doo da ngay gudd fan képp kuy naan saab-saab doo tële képp kuy naan saab-saab doo gaaw a màgget booy naan saab-saab si sib du gaaw a dee sidi du gaaw du easy nooy saab-saab bi noo koy naanee saab-saab ko naanee baax noo ko lekk baax boo ko walee ci boo ko walee boo ko daggee weer ko ci ker dëbb ko weer ko ci ker ba mu mokk nga dëbb ko def ko ci boo koy togg di ko naan baax def ko si frigo waaye bala nga naan koy tàng boo ko du baree sab-sab def ko ci eh, pot di ko tibb di ko boole ceeb di ko lekk baax waaw kii new la nee reew new day gën a cat hmm. cat catal nit catal jinn catal rab catal seytaane ñeenti cat yëpp reenu na la koy génne ak xobi eh, si kii xax coy xasu xasu xasu niimaa la xasu niimaa cuuraay xasida cuuraay fii euh, xaax cooy la xaax cooy amul fii amoon na Kajoor waaye amatu léegi mu ngi am kaas ma jëm kan léegi yooyu yii kii reenu njàndam la imurit du ci wax am naa téeméer garab yi boo fa indi du feebar bu garaaw mën naa dund ñaar fukkat mën naa dund ñeent fukkat du ba këram yi def la rey xam nga lu garaaw cab liggéey rab seytaane jinne bët loolu la war a jàng ak yu góor gu ñu téye liggéey ba dootu am ak ku ñu tas sa ak koo xam ne dañu daan liggéey ba jàpp sa rawaxaan looloo jareen jàng yi mais ay numéro yi nag yooyu du lu fa fal quatre vingt jàpp euh, pour cent la juróom-ñeent fukk juróom cat cat dina jàpp soixante personnes du Sénégal yi liggéey dina jàpp cinquante pour cent de Sénégal seytaane nag dina rey nit dina dofloo nit dina yàq nit dina dina um nit seytaane day jël sa bu ngeen bokkee bàyyi yéen ñaar ñi duñ tooñ ñi duñ leen tooñ ñi ñuy tooñ ñooy am ñi def duñu am ngeen hmm. parce que itam ne am na hmm. waaye fii bu Afrique du Sud bi bu da fekk fi ñaar fekk lang lang wala ñu ne da nga bi tudd garab yi moo koy fekk hmm. garab yi faj seytaane bari na fi kii reem ca xam di góor kii xasu xay la kii euh, kii ngun ngun la ngun ngun ni ñu attaay lañ ci xam mais ngun ngun moo gën a gaaw ci émori Hmm? da koy fekk bu gaaw ku sa bopp mi ba suñu bu wér kii lay doon la pour pour lay doon pour pour kii la lay doon man pour see seer hmm. am na reeru daxaar pour pour jënd am na feex pour seytaane am na euh, euh, euh, soiñtu am na ngolañ ngolañ pour rab ak jinde seytaane ak um yii yépp nag fii mooy si Sëriñ Mansour borom daal sama sëriñ hmm. sama baay sama xarit sama soppe sama yaakaar sama xortu ay sama nagu bët ndax dëgg bëgg seet say Mouhamadou Mansour ma defar moom Seydi Mouhamadou Mansour Baye ku mu bëggoon la ko ma soppoon la lu bokk maam ca bànn maam suñu Mansour hmm. yooyu da nga koy liggéey ak ay bind ay tur bind tur yàlla wala bind secret taw sax moo ma gën a yombal ka bind xaatim dafa jox nit ñu bari ñu bari cooreel damuy am sëriñ bu leen ñaan mooy koy bu da ngay bind xaatim mu damm nga jox ko mu tënk ko tëj maanaam da ngay bind xaatim jublu ci dimbali nit xaatim bi damm nga jox ko nit mu tëj ko tëj mu tëj dix ans wala mu tëj cinq ans am na ñu tëj ñu bari sëriñ bu leen ñaan mooy tëj xam nga sëriñ ñoo dàq tëju sëriñ si ñoom ñaan ñi sëriñ si ñaan ñi man mm. sëriñ laa soxla ba tëju ni ñu ubbee sëriñ bu ñaan moom ma gën a gaaw kii bëriwel ngeen la bëriwel ngeen bayre la waaye day faj xol bu yàqu garab goo gis am na fukki faj ñaar fukki faj wala benn garab goo gis am na kii xasum sump la xasum sump day dindi cat day dindi liggéey day dindi rab day dindi seytaane garab goo gis ci àdduna xob bi am na njëriñ garab goo gis ci àdduna reen bi am na njëriñ garab goo gis ci Euh, donc am na njëriñ garab googu si àdduna man damay jaaxle sax laaj. Hmm. waaw juróomi garab mu amee Sénégal mi fi nit di feebar limon. Hmm. laaj. jinjër. saab saab. docteur juróomi garab yi am Sénégal ak mbante ba pare nekk. warul nekk déedéet feebar bu daan am na garab bu mën a garab yépp nag dafa am ay alxuraan yu muy àndal am ismulaay asam buy àndal am na garab boo gis xaw garab boo gis ba weeru garab boo gis am na ismulaay asam bu mu communiqué ci tur yàlla yi. xaw garab boo gis am na ay axam lu mu communiqué ci ay alxuraan yi xobu garab boo gis am na commun wala xasu garab boo gis am na lu mu communiqué ci talsam yi xaw garab boo gis am na lu mu communiqué ci wàllu wàllu lasraar ci wàllu fas yeeg yooyu yooyu nga xam ànd ak moom day gën a gaaw am na cuuraay ku dul sikkar doo sang doo suur doo sarax doo gudd fan ku dul sikkar doo sang doo suur doo sarax boo amee boo rombee juróom fukki sa lépp day wàññi wàññi loolu nag ko defee boo dee sikar di sang rasul ma xam benn affaire. Hmm. lu tax africain yëpp sunu maam yee doon raw. voilà la question boobu dama ko fi dama koy dama koy tënk bàyyi nga bàyyi nga làkk nit ñi. sunu maam yee nu raw. africain boo seen maam ak raw te africain africain boo seen maam ak raw lu tax tubaab yëpp ñoo raw seen maam Sénégal maa xale ñu dem jàngi xam-xam faj xam-xamu lasaraan xam-xamu faj du ma bay du ma gor du ma jënd du ma jaay amul lenn nit bëgg ci àdduna boobu. bëgguma jigéen sëñ bi baax na ku ko am yàlla suñ yàlla suñu diglaay hmm. président baax na ku am yàlla suñu diglaay bay baax na ku am yàlla suñu diglaay naak sàmm baax na ko mën naa faj nit ñi rek laa bëgg maa ngi ñaan yàlla bala maa faat yàlla naa faj mais liggéey bi est-ce que yàgg nga ci ñaar fukki million ci ay doomu aadama yàlla na faj ah. yàgg ngaa liggéey liggéey bi di dimbali ay nit ci ci jàngoro 78 laa commencé 78 ba tey yàgg naa fii ba gàmm bi damay jublu sa ak suuf. mais amul yeneen yoonu mën a wan fii ci kër gi yaakaar naa ne am na yeneen yu fi nekk euh, mbokk yi ñoo ko déggandoo gis ngeen ko Ndox TV ñi noonu rek euh, di dugg ci ruq-ruqaan yi góor gii nag euh, dégg ci ay nit ñu koy wax ay jaloor yu mu def ñi mu faj waaw nit jinne jàpp na ko mu saya saya saya saya say ko waaw moo tax tey ma xëy rek bàyyi yëpp ñëw fi seet si ko gis nga ñu ngi ci beneen laboratoire gis ngeen butéel yi yëpp ni mu baree benn bu ci ne daa am lu mu def góor gi lii lan la fii tamit ba tey ci pharmacie la bokk. fii pharmacie ma sol fële la garab yi nekk fii la tur yi nekk. ak aaye. am na ñu ñemee wane am na ñu ñëwul wane am na ñoo xam ne ko wane. waaw am na ñoo xam ne kenn du ko wane kenn du ko wane loo xam ne mën na ko lii boo am seen nit yi da ngay ko naan. cat du dañ. c'est pas vrai cat day dañ cat day dañ catul nit day dañ catul jëne day dañ catul góor day dañ catul jigéen day dañ cat nag dañ koy sang. am nañu sangoo. vingt litres am nañu sangu quarante litres am nañu sangu soixante litres am nañu sangu cent litres am nañu sangu deux cent litres am nañu sangu trois cent litres am na dañu sangu ci bis bu cinq cent juróomi téeméeri litres nañu ko sangu. par bis waaw ci bis bi. bis bi ci bis bi xam nga tax. Mhm. damaa gis benn affaire bu garaaw. Mhm. mboolem ñi fubal nawetaan. Mhm. ku ci dàq fubal nawetaan boo boo guddee boo boo màggee doo am wërsëg. fubal ko nawetaan yi. ku ku ku man ci nawetaan dëgg-dëgg. ci Tiwaawan Ndar Ndakaar Kees Tamba Kaolack ba kere nga yegg Gambie maa sama daal di wër Sénégal ku nekk titulaire newetaan dàq ba newetaan boo màggee doo bës léegi lan moo a loolu cat yi ngay cat ba ngay nekkee di newetaan ak ak liggéey ñu lay liggéey moo lay tëj sa wërsëg boo màggee doo am wërsëg mën ngaa gudd fan ndax entraînement bi boo màggee doo xaalis doo kat kat doo am étage doo am boo amul doom màgg laa yor doo am doo am doo te di ma la dugal teew am na seet ko demal ko jàkk ko ko li njàndoxum kër Matar li ngay wax kay moom dëgg la li moom nit ñi xam nañ ko. boo demee ba aslem fépp ku ñu fa naan toog ci nawetaan boo demee wërsëgam yaatu. mais léegi loolu ku mu daal nga bëgg mu dañ nan ngay def. sang lii mooy cat 3333 la. Mhm. ñetti junni yi ñu bind fukki junni saafara. Mhm. dañoo bind fukki junni saafara. Mhm. teg ñu toog prévention la ñuy def prévention lépp lu dal nit. lanu ci xam bind nañ ko mu egg teg teg ci kaw nag ndigalu suñu Mansour ci kaw ndigalu. sëñ bi moo leen ci jox moo leen ci jox ndigal. ci kanamu waa daara jaa ngi toog booba ku ma imaam Pape Faye gi toog moom Jaas na Géey gi toog ñu toog mu ni ma ma ma jox moom na toog waxtaan mu ni ma demal may naa ndigal kon sëñ Mansour jox ndigal nag xalif général Tijaan sunu baay sunu sëriñ borom daara ji borom. doomi Cheikh Seydou Aboubacar surtout Cheikh Seydou El Hadj Malick. xut bu boobu xalifu sëñ Babacar surtout sëñ Babacar xalifu sëñ Babacar. xalifu sëñ Babacar doomu sëñ Babacar xalifu sëñ Babacar Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour kooku damay ñaan yàlla bala maa faatu yàlla naa faj ñaar fukki million ci ay doomu aadama bala lim bi nga ci faj ak juróom téeméer laa kon koo faj da koy bind xanaa da koy recensé man dama ne ni wut ma jege président hmm. wut ma jege sëñ bi wut ma jege kenn la ma bëgg mooy faj ni bu wér mooy sama liggéey man lu ma liggéey leneen lu ma li ma liggéey mooy faj kii nag cat la hmm. jàpp boo ñëwee fokk sangam bi luy xeetu cat daal catu mhm. nit mhm. jinne est xam nga ne jinne ni muy catoo nit nit du ko catoo nit jinne day catuwaat jinne moo dàq liggéey nit nit jinne liggéey nit nit liggéey nit mais est li ma bëgg a laaj mooy xale yu jigéen yi nga xam dañuy dem ci école yi jékki-jékki ñu naan jinne may mun naa leen jàpp ñooñu ñooñu est am na loo ci mën a def loolu lu taxaw bu ñaari ñetti cangaay mu jeex ñetti cangaay mu bàyyi la bu dafa am benn jigéen mu ñëw këram mu ne ma këram ñu ma lii fukki junniy mhm. saafara ak ñaar fukki fukki junniy saafara ak ñu bind fii te lii minimum mhm. parce que ñun li ñu bind mën nañu bind téeméeri junniy saafara mhm. mën nañu ñetti téeméeri junniy saafara gis nga amul ci àdduna benn aaya alxuraan boo gis am na téeméeri faj fajin yu bokk benn aaya ci boo gis am na ma téeméeri fajin yu bokk téeméeri fajin yu bokk waaw lii ay secret la benn bidon bu ne ak la mu def ak la muy faj bi jàpp lay faj bi rab lay faj bi liggéey lay faj bi seetaan yi ko umu kii secret la boo xam ne ñi muñ wax ñu guddi ko mooy kii ki ko dëkk ba dëkk boo ko woowee doo mën a wax te fii ci ànd la mhm. doo dafa waxe lu la neex ba ànd ak ki la neex daf la neex déedéet da ngay da euh, da ngay def ni la li ñu sant da ngay ànd ki ñu la def li sant fii ci ndax fi lu may wax ni kilifa dina ko seetaan woo ma ne ma li nga foo ko teg waaye lu ma wax rek discours préparé naa quatre ans fekk na am nga ci ndigal. boo xamee ni koy liggéey xam fukki garab juróom-ñeent xos xar fan nga xool alfan fukki araf juróom-ñeent wa nunazzilu mina al-Qur'an maa huwa shifaa'un moo tax ni ñu may faj alquran alquran day faj waaye nag bu bëggee mu garab da ngay ànd garab ku doon faj te jàngoo garab da ngay xam dee nga dee wala nga ñàkk ñàkk wow ah da ngay ñàkk sëriñ boo gis mu tëju daay faj te te te xamul garab mais li ma jaaxal dama laa gis sànq ngay bind ay ay ay ay bind yu. waaw bind yi ñemewuñu ko wane ni ñu bind ñemewuñu ko wane ci écran bi parce que kon euh, bu subaa sëñ bi woon wala keneen woon. <laughs> parce que dama gis ay ay bind yoo xam ay mètres yi mètres yi mètres yi mètres. am na 80 mètres am na 100 mètres am xam nga téeméeri yaasin dafa bëri téeméeri yaasin wala 129 yaasin dafa bëri 120 100 100 100 100 kii 15641 euh, kaay ñu woo benn benn beneen beneen beneen pharmacien. mbokk yi ñoo ko gisandoo gis nga ko ñoo ngi dugg ci pharmacie yi fii nag li ma leen di wan preuve laa ci am damaa fekke mu def ma gis waaw ma bëgg koo bokk waa àddina lii laay def waaw. kii. Ah. secret 17 millions 173 mille la. 17. millions 173 mille. kii day dindi liggéey day dindi cat day dindi rab day dindi seetaan day dindi bët. 17 millions lan. 17 millions mille 600 512 ci am tur yàlla benn tur 17 million ngay bind benn tur yàlla nga bindee 17 millions 173 mille 6 512 nga bind ko boo ko bindee ku la liggéey feebar ku la liggéey mu dellu ci moom day dee liggéey te li gën a garaaw mooy ku la liggéey day day weer day jikki di wax moom day wax loo waate li ko sanga ko lay yokk na nga jikki di nit diw di diw di liggéey naa ko soob yàlla di dut am dara waaw say fii am na mboolam aay alxuraan boo gis am nañ am na aay bu mën a àndal faj mi aay alxuraan boo gis saar bu alxuraan boo gis am na saar bu man a ànd wala nga jël aw saar dugal ci ay aaya mu man a faj nit yooyu mag ñi xam nañu ko mag ñi génn yii sëy fii la nitu yàlla bu mag moo ko liggéey kul bu samaan ba xalifa sénaati jàll te nga mooy seen foti taal moo ko liggéey sëy fii boobu euh, sëy fii la boo xam ni lu mu mënul juróomi junni sëriñ li gën ba jàppal boo sangoo bi wala nga sangoo bi mu deñ waaw lépp luy wàllu cap day koy jënd dañ koy faj liggéey dañ koy faj directeur société bu ñu liggéey foofu personne liggéey dañ koy lëjjiti kooku bu dem toogal dañ la sangee fa la liggéey dem àlaxira am na bokk am na maanaam directeur société yi nekk seen société nit ñi di leen liggéey ak yooyu ba ñu démissionné waaw ah. ba ñu démissionné nañ ñëw fii kër Serigne Mansour ci kër ci kër pharmacie borom daara ji nañ ñëw fii ñu ñëwee mooy ko cangaayal xutbu sax am na cangaayal xutbu cangaayal xutbu am mooy lan xas bu naa laa loolu lañ ma la wakki boo xamee ñaati xaraf la nga xam ñaata lañ koy bind. comme mm-hmm. xobu sànq waaye la benn affaire nag. Mm-hmm. bu sa bàyyi di xut bu sama. ñaan la bu ñaan nga nangu moo juróom-ñaar fukki wàll mm-hmm. ñaan la bu ñaan nga nangu doo sëkkal doo sëkkal doo sangu doo suur yow la nga taxaw ndax ñaan gi ne ñaan mais doo taxaw daal loo samp daal bu sa bàyyi di xut bu sama ñaan la bu ñaan nga nangu ngoo bu ñaan nangu nga ne ma sëkkal du ma sangu du ma sarax du ma suur boo yow loo samp mu daanu yow yow samp lañ la waaye doo samp dara te li ma la wax ni boo xoolee sa bët dox Sénégal di nga mos lu mel ni ma li ma wax te lii gëstu naa ko trente huit ans at juróom-ñett. di ko jàng di ko jàng pour lu ñuy fajal dëgg laa man faju ma soxlawuma dara ci àdduna. mais joo xamante ni maanaam dafa nekk ci sëyam euh, sëy lu yàgg amul doom est-ce que am ngeen am ngeen ci ay. ay mango ci gën a gaaw jigéen ñi mënta am doom boo dëkkee yàlla dogal na ci moom doom. Ah. mango ci gën a gaaw mango bi ñuy lekk mango lu xam. Ah. mango ci gën a gaaw kaa ñu dem feneen ma wan la. mais mango xanaa da ngay jël mango ji rek dagg di lekk de xanaa mbokki kaay ñu ngi fi ñu ngi dem ci beneen laboratoire gis nga ko laboratoire baa ngi nii lii daal fi ñu nekk nii daal gis ngeen ko mbokk yi gis ngeen ko ñoo ngi nii dugg ci li nga xamante nii mooy laboratoire bi sama góor gi daal tey waaw garab mhm. gan la fi gan la fi gan la fi waaw garab gi gan la fi. Hmm. gan la gan la fi Afrique. waaw mais garab gii. garab gii dina faj rab. Hmm. gii dina. garab gi nu mu tudd. soigne tout lañ koy woowee ñu naan kan ñu naan kan euh, waaye boo demee Côte d'Ivoire. Hmm. Cameroun Togo beneen ñu ngi koy woowee ndole ndole. ndole yaa ko ji fii nii. maa koy plante nii maa koy roose nii. gis nga li ma lay wax garab gii ak gële ñoo bokk. mais gële lañ koy roose gii lañ koy roose gële lañ koy roose. ndaw li sangu ndaw li sangu la yem kii sangu gis nga ni mu amee yaram kii du sangu gis na ko nii. bee du sangu bee duñ ko dul roose moo tax moo tax réyul na le mooy bee du sangu bee bii day sangu. léegi nag kii day faj bët buy métti. Hmm. day faj bopp buy métti. day faj day faj euh, tànk yu róof. Hmm. day hmm. faj day faj tànk yu róof. bëñ buy métti bëñ laaj nga see boole laaj. boo ko boolee laaj togg ko juróom-ñaari ba mu togg juróom-ñaari fan nga def ko nga def ci doomu laaj boo ko toggee. boo ko góoxee juróom-ñaari yoon bu seetlu woo ma téléphone yooyu sama numéro 77 225 29 50 woo ma ne moo ko dëgg juróom-ñaari minute fukki minute bu seetlu bi kii. Hmm. fu néew yi. Hmm. fu yi wala loxo bu wala baaraam bu néew yi defal ba bu dëgg day bu dee ne dafa nopp bi hmm. mu ba mu mokk. nga def ko nii. toolu ci biir. waaw sedd bi kii. bu dee góor góor góor góor. wàllu góor dafa baax. Hmm. ku koy yor mën ngaa yor ñeent ñeent soxla ku garab gii. Hmm. oom yu métti da koy faj. garab gi xanaa même bu fekkee da koy faj dafa am yu muy àndal. du am na am na tur mu àndal am na alxuraan àndal. waaw ah, du da ngay dag rek naan da yu muy àndal. moom mii dong rek mën naa faj loolu ma la wax. saa alxuraan am na bu dee da ngay faj cat nag te ànd tur yàlla. bu dee da faj rab day ànd tur yàlla wala ay alxuraan bu dee da ngay faj jinne day ànd tur yàlla wala alxuraan waaye bu fekkee da ngay faj fat biir buy métti hmm. bëti lëndëm euh, ndigg luy métti tànk yu roox hmm. yax yu roox koo xam ne boo lekkee doon rek gaaw a rees hmm. ak góor goo xam ne dafa néew doole ci wàllu kër kii boobu boo koy baxal di ko naan mën ngaa ñeenti soxla al isara tak fii nag foofu la ñu mën a yem waaw xam nga la wax léegi nag kii jàng naa ko gi rek garab gi amul lu mën ci doomu boo dee boo defee que doo lekk doo rees. Hmm. wala boo tëddee guddi doo mën a nelaw. Hmm. kuy tëdd guddi doo mën a nelaw rek ko naan bokk naa ne la. nit kuy naa ne day daj koo xam ne doo doo lekk du rees bokk naa ne day kii nii boo ko jëlee. Hmm. boole ko ak euh, karité. nga fekk fu léewi. nga boole ko boole ko moom di diw ko taf ko. boo ko takkee boo yeewoo day day day taap. taap ku taap boo ko takkee ci taap def ko ci taap. wala ka takk ci boo ko takkee bu yeewoo da koy xëcc. garab gii mën naa fa téeméeri jàngoro garab gi rek mooy ndole. mooy ndole moom la ñu tuddee ndole moom la ñu wax itam euh, soigne tout am nañu ko naan docteur. Hmm. bu ko defee ndole nag ñu ko wax Cameroun Togo beneen Niger Nigeria ñoom ndole hmm. la ñu tuddee ndole. daf lañu koy lekk. Hmm. moo tax ñëw lu gën a wér kii ko koy lekk doo am benn feebaru biir day faj xol bi métti day faj biir bi métti day faj res bi métti day faj euh, maanaam euh, prostate. prostate. boo koy naan doo am prostate parce que prostate day yokk. boo ko naan da koy wàññi prostate boo déggee prostate bi comme loxo la mais day day neewi bu neewee nag sakk prostate mooy régal diggante sëy ak saw hmm. moo tax kuy sëy doo saw ngeen baal ma kuy sëy doo mën a saw kuy sawee doo mën a sëy doo mën a génn ndoxu loolu la nga def mooy prostate da nga am problème hmm. di ko naan day dañ boo ko saxoo day dañ bu la neexee nag nga toog ci tuwaay bi nii hmm. bu la neexee itam nga jël ko weer ko boobu nga dëbb ko def ko sugal di ko togg di ko hmm. saa boo koy naan na ko tàngal. maanaam boo koy naan dafa war a tàng. dafa tàng dafa tàng. Hmm. waaw jërëjëf. ñu hmm. jàll ci saaf saaf. kii boo demee Côte d'Ivoire. Togo. Benin Niger Zaïre yi ñu koy woowee euh, moringa. moringa waaw moringa. nebedaay. nebedaay néegu daay. niveau daay mooy sama moom fii mën naa ko 300 mala bi boo demee Inde yi ak Chinois yi neen mën naa ko ñetti téeméeri jàng sax. bi hmm. mën ku kenn naan da ngay gudd am na vitamine A xob bi am na vitamine A am na vitamine C am na vitamine B am na calcium am na manganèse am na suuf am na sëñ xobu sax te lii lii médecins yi ñëpp d'accord nañu nii xob bi fajee noonu la xam xas mi fajee noonu la reen bi fajee. moom saab-saab moom bi gën a gaaw ci ci rab wala seen su ko seetaane jàpp képp ku seetaane jàpp itam kii boo ko naan mu day waaye saab-saab ku koy naan da am doole saab-saab ku koy naan si si si sa digg du uusee. saab-saab mhm. koy naan da nga gudd fan. saab-saab ku koy naan si. mais ku koy naan noo koy naan da koy baxal. mën koo baxal naan mën na koo def si kii bi naan. Euh, mën kaa def si. mën nga woo xooj. mën nga koo weer ba mu waaye nag weer ci ker. Hmm. ba mu wow nga dëbb ko def ko ci meew baax na boo ko defee kafe baax na boo ko defee itam ci ci ceeb bi ngay lekk wala laax wala fonde yëpp baax na nga koy weer moom boobu waaye nag boo koy weer ci kenn nga koy weer. kenn du ko weer ci naaj. boo bëggee bu dëgg-dëgg kenn du ko weer ci naaj fii mën naa ko ñetti téeméeri jàng Sénégal bu ñu ñu waxoon mag ñëpp oom yu mucc da koy faj yàq yu da koy faj. kuy sedd sedd day dindi sedd. saab saab képp koy naan da gudd fan koy naan da wér koy naan boo gaaw tëdd amee ñaari jigéen ñu amee bopp benn bis kii naan saab saab kii naan saab saab kii naan saab saab jëkk fu muy ëpp naan saab saab di ko hmm. nampee lool. Hmm. doo mooy jëkk dox mooy jëkk wax muy ëpp doole boo bëggee nekk mbërëm làmb. Hmm. mbër saxoon saab saab. surtout nga am nga am nga am poids da am da nga boo gisee mag ñi Sénégal di gaaw a paralysie di gaaw a yàqu noonu saab-saab lañ dul naan maa ngi koy digal bépp mag Sénégal hmm. boo ko baxalee cinq sa frigo di ko naan baax na boo ko walee nii def ko ci sa kii di ko tibb di ko lekk baax na hmm. boo ko jël di ko boole di ko def sa kii baax na waaw léegi nag yooyu hmm. saab saab léegi ku bëgg a ñëw ci yaw pour pour seet si la nan lay def fii maa ngi Tiwaawan samedi maa ngi Tiwaawan dimanche maa ngi Tiwaawan altine maa Tiwaan rek nga nekk. jàng naa xam-xam yi waroon jàng yëpp maa ngi Tiwaan dem dem ku la bëgg a jot ci ban numéro la la mën a jot. 225 29 50 77 225 29 50. 225. 29 50 121 11 13 kii ngul ngul la. ngul ngul. ngul ngul. day faj bopp bi métti. ngul hmm. ngul day faj euh, day faj euh, hémorroïde. Hmm. ngul day faj euh, maanaam koo xam ni. maanaam boo tëdd guddi da ngay da ngay kuy wërd hmm. te bañ a nelaw hmm. den naan ngun ngun waaye lu yem nga ci naan la hmm. waaw kuy wërd bu fekkee ne da ngay sikkar guddi bañ a nelaw bañ a nelaw den naan ngun ngun boo demee ba ba ba vingt heures boo ba ba ba six heures de matin doo nelaw ah doo nelaw moo mën moom noo koy naane da ngay def dek baxal ci baxal moom bax rek nga naan ci kaas nga naan ci kaas waaw da ngay sawar nag da ngay sawar sa yaram bi di ubbi ko da nga wax tooy dañuy dem ci mbànk ma wan la mbànk

boo ko sangooyee. Hmm. liggéey hmm. dindi liggéey mu am delloo liggéey ku la liggéey dee ñetti am dindi liggéey delloo liggéey ku la liggéey dee. màtt hmm. nag day faj rab faj saan mbaante ku koy naan doo am la rein. tur parce que nit ñi dañ koy laaj alxasan siis. waaw alxasan siis rek. alxasan boo ñëwee ba Tivaouane mënoo ko jot bu la neexee nga doo am jalis. jalis jalis. feebar rein. waaw day faj feebar rein. mbante boo koy naan doo doo gaaw a sonn doo gaaw a sonn mbante nag kenn du ko ci dëkk takk ci bopp am na ñu koy def mais kenn du ko def c'est interdit ku feebar nga takk ci bopp nii. Hmm. day dee de. déedéet kay. Ah, da nga koy baxal dox ko suba mu kaas mu naan nga baxal ko mu naan ci nga sangu bu bëcc gi nga baxal mu naan sangu ci mu koy naan mu sangu boo ko defee juróom-ñaari mu jeex tàkk feeb jeex jam kuy naan mbànte euh, ñaari boo ko naan une semaine bu cooroon jotee nga naan ci doo si bur ci juróom-ñetti fan bis bi da nga naan kaasu mbànte bu si bu ànd kon daal mbànte koy naan doo am insuffisance rénale quoi déedéet bu ko am bu ko lii ba tey foofu pharmacie bi borom bu ànd ak dogal suñu yàlla na ko yàlla fayal amiin yaa rabbal Euh, sañ bi man lii taxumaa jóg xam nga la bëgg hmm. tabax première première fajukaay cosaan en Afrique bu ma amee cent millions hmm. dinaa tabax benn fii ci Tivaouane am six hectares am cent millions hmm. dinaa tabax fii loo xam ne faju fi ñuy fajee ci ci Afrique loo xam ne amul ci Afrique ak fajukaay ci Tivaouane six hectares rek ak cent millions ndax mën na maa bind million saafara fukki téeméeri junni saafara mën naa ko bind mën na maa juróom-ñaari junni garab mën naa liggéey defal pharmacie borom daara ji borom daara lami si borom oto ba borom xam bu saan ba xalif suñu Babacar Si borom suñu Babacar suñu Mansour si tudd mu laa ko tuddee hôpital mu ko tabaxee suñu Mansour laa ko tuddee borom daal mais boo amee 100 millions naa tax boo am hôpital boo fii ci am amu ci Afrique boo xam ne fajukaay cosaan lay doon nag waaye maa ngi joxe ab lancé hmm. képp ku feebar njëkkal hôpital ba nga dem sëriñ njëkkal hôpital ba pare képp ku feebar hmm. bala ngaa dem sëriñ demal hôpital man sëriñ daal hmm. waaye ku feebar bala ngaa dem sëriñ demal hôpital léegi la moo tax nga wax ah, ñoom ñoo ëpp matériel dañ lay seet xam cat la sof la rab kii la ñu euh, tudd tension la wala diabète hmm. la wala lan xam nga hmm. bu dee tension wala diabète la boo ñëwee ñetti feebar hmm. bi sëriñ ke say faj bi hôpital ke say faj ak bi nga xam hôpital mën ko faj mën na ko faj am na feebar yoo xam hôpital ko faj cat hôpital mën ko faj rab ko faj jinne hôpital mën na ko faj bët bato hôpital mën na ko faj seetaan hôpital mën na ko faj waaye nag am na feebar yoo xam ne ma mënu ci dara hôpital doo nga koy faj comme yan ah comme yan feebar ma lu mel ni bët man du faj bët bët ba métti hmm. sama yoon nekk ci moo ko faj waaw hmm. ah. dafa am bu ñu génne dara ci biir loolu seen mënu ko sëriñ mënu dara déedéet mënu ko opération ñu ne bëgg naa ko hôpital fay am mat cinq cent mille francs waaw léegi nag kii nag médicament la li ma ñeme ko wane nii mooy binduñu ci li ñu def 99 ba ñëw ci 77 aaya alxuraan yi mag ñee ko génne tànn seen bopp ni juróom-ñeent fukki aaya juróom-ñeent yi ak saari alxuraan yi talsam yi boo ko tur yi boo ko boolee mën naa faj lu ëpp ñetti téeméeri jàngoor ci doomu aadama muy cat muy liggéey muy rab ku bëgg a jëkkër ku bëgg a doom ku bëgg a tukki ku am ko xam ne ngaa toog umu nit umu cinquante hmm. am na dañuy liggéey ba jàpp seen raxaan. boo ko ñoo xam dañu leen liggéey ba jàpp seen raxaan hmm. seen raxaan garab euh, kii dafa am nag juróom-ñaar fukki garab yi muy ànd. Hmm. amul nag ci àdduna lu ma parce que. bu buñ la limaloon ay duñ ko ñemee ndax audio bi. Mhm. ndax dañu leen kilifa dégg ko ne la waaw lu tax nga wax nangam ci kii mhm. mais bii kii mooy faram si biir si maasu lépp xam ko bind na ko denc di wax prévention tubaab dox tax nit ku ñuul koo séen. Mhm. wax na sànq nit ku mais ñun lan moo tax tubaab day day jël day jël day tabax defar garab bi xaar malade bi. waaw ñun nag dañuy bàyyi malade bi feew ni su ko uti garab bu gën a valable. defar garab di xaar malade bi. man nag damay defar garab di xaar malade mën na ma jël cent personnes par te amoo benn moyen bu ma demee ba am moyen mën na maa jël deux cent personnes ba mille personnes par jour mën naa leen faj mille personnes ku ñëw dinaa la consulter jox la garab bu ma amee trente personnes yu ma jàppale. bu ma amee dinaa tax fii of ci wàllu suuf. Hmm. dëkku Seydi Hadj Malick bii ci suuf Seydi Hadj bu am Afrique amu fa bu ma amee un milliard dinaa tax boo xam ne am ci monde bi yëpp ci xobi garab ci xasu garab ci reenu garab ci al ay ay alxuraan lépp loo xam ne nekk na ci ci wàllu faj faj nag dañ ko doon. Mhm. ñun séeréer siis laa sant. Mhm. sama maam moo dëkk euh, saña fi. Mhm. ñun séeréeru saafeen suñu côté bàyyi suñu yaay moo sant looy di lébu. dëkk jandeer dëkk bu ñaan kemaay. xam la ñun kemaay ak kën bir même pas trois kilomètres kemaay ak Tidem même pas quatre kilomètres kemaay ak Toor sorewul waaye li ñuy wax mooy faj suñu maam daan faj. suñu bàyyi daan faj mursiyaat imaam al imaam akbar mursiyaat daan faj suñu bàyyam daan faj sàmba ko mursi daan faj maag xalifa siis mhm. faj nag xalifa siis bi nekk quartier booy quartier ah, ba nekk ca ginnaaw waaw boobu maag moom bi daan jàngi ci Passeman Dia maay son xalifa bàyyi ma ma ma maa jiitu mu toppati ah waaw sama rakk la ñun ñaar doon faj faj nag boo ko doonee te jàng ko doo ko mën de danu ko doon pare jàng bëgg ko la bëri man dama ko doon jàng ko bëgg dama ni wax nit ci ma nekk dama bëgg comme ni président Macky Sall bi mu bi mu bi mu bëggee deuxième mandat ni mu ci sonne waaw ah, ni mu ci sonne noonu laa sonne ci <laughs> bi mu ko gagné ni mu kontaan ma bind di ñëw nag ñaanal ko kontaan nag deewarte ma wax ci benn tâche ma jox ci benn benn affaire fii ku tension daaneel guddi tension ku mu daaneel boo jëlee juróom-ñaari xam nga baxal ko jox ko mu naan foofu la yem ku koy naan doom tension dañu tension du wér ah kii day faj tension ma nee nañ tension du wér nag am nañu ko wax ci rajo tax coo dumee nee nañu góor du naani reen góor gu dul naani reen doo gudd fan góor day naani reen boo bëggee yor soxna ñaari soxna ñett soxna ñeent da ngay naani reen reen nag benn laa ci tere mooy poftan reenu poftan kenn du ko naan c'est interdit dafa am asib reenu xay baax na reenu foofu baax na reenu mango baax na reenu limon baax na reenu daxaar baax na reenu xaxtee baax na reenu dibutoon baax na reenu golañ baax na reenu daxaar baax na reenu dal baax na waaye nag reenu poftan moom kenn du ko naan c'est interdit kenn du ko naan c'est interdit ku la jox na nga sëriñ boo gis ñu ko jox na aay ku koy dàq ji boo amee juróom-ñett fukki at ko naan tension doo daan boo amee juróom-ñett fukki at di ko naan tension doo daan kii képp ku koy soxla bu ma gisoon président Macky Sall dama ko naan da nga jël garab ne ñu jëmbat ko par force garab normal moo yoon ni ñu ko war a jëmbat kër gi ñu ko am ku koy naan doo am tension mais ku koy jëmbat nooy def ba jëmbat am dindi jabeet ah bant bi nga am ko moom comme bi boo ko jëmbat mu jëbbi waaw ah, boo ko jëmbat mu jëbbi kii ku koy naan doo am jabet doo am tension kii ku koy naan tëbb du lëndëm ku koy naan ku koy naan boo da ngay sawar ku koy naan boo lekk day gaaw a rees mais xamal la moo ma jaaxal lan moo waral mbind mi bëggoo ñu wane ko ci ci ci waaw mi nañ xaar ba ci <laughs> parce que nit ñi nag mbokk yi li tax ma ñëw fii mooy damaa gis lu garaaw li garaaw li ma gis nag moom nanguwul ñu génne ko ci internet bi ndax man gis naa ay mbind yoo xamante nii feuille yu soixante-dix mètres ñu bind ko ak ay ay alquran ba mu fees del gis naa ko xam nga téeméeri yaasin rek loolu la man la lu ne yaasin li maa xure li kulli shay'in xalbun wa xalbun yaasin te saar ba mu jeex nga bind ko ba mu cent am na am na ci benn cangaay am na téeméeri waxeet am na junniy latif am na yu ne am boo xam ni hasbunallahu wa ni'mal wakiil nga bind ko dix-neuf mille xos xarfan wa xol alfan waaw ma ni bari na Sénégal bu am chance mais bari bu am gàllaaj quatre-vingt-quinze pour cent de Sénégal amuñu gàllaaj dañu am chance mais amuñu gàllaaj ak Hadj Mansour borom le directeur général de de de université de Hadj Malick moom laa ko tuddee mu El Hadj Mansour Sëñ Malick moo ne sama baay cat mën naa toppali bu ci bàmmeel nga war def ajju mu yóbbul sama wala Hadj Mansour su ma ko sama baay ci caaru ji moo si ko cat mën naa topp nit El Hadj Mansour si sëñ ba Seydou Hadj Malick moo ne sama baay moo si yaay ne ko cat mën naa topp nit bu dem ci àll àllaax bu ba bàmmeel mu dem war a dem ajjal mu yóbbu ko sawar moo tax garabu cat laa gën a liggéey ci àdduna jàng naa ko fanweeri at cat bi ñuy fajatal catal nit catal jinne catal rab te ku xëy ku xëy war ngaa sàmm cat suba bu xëy war ngaa sàmm cat suba bu xëy jàpp xel général tijaan dina jàpp xel général dina jàpp xol bu samaan cat dina ñëpp lay cat daal ñëpp lay jàpp ko lay jàpp ku dina cat dama jàpp liggéey day wax lu ko neex mën nga ci pexe waaw loolu jàng naa ko fanweer at 30 35 ans cat 1980 laa jëkk bind livre ci cat ni ñuy dindee maanaam cat daal fi mu toll nii mën naa téye nit ba wërsëgam tëju looloo gën a bari tiwaan ban ab téer boo xam ne monsieur yàqute cat ko téye ban ab xam ne am xaacul daal di daal di cat ko téye ñaata xale nekkoon fii kon jàkk wala kuli wala feneen ñàkk ñàkk bu gaaw cat leen yàq cat li mu yàq Sénégal kenn xamu ko lii Sénégal 95 pour lan moo ko catu nit jinne dina catu nit nit dina catu nit jinne dina catu nit ku bëgg gudd fan hmm. ku bëgg gudd fan xalaat boo may la hmm. titulaire titulaire nawetaan diw yaa dugal na diw nangam diw nangam cat loolu booy moo leen moo leen tax ci wërsëg jërëjëf mbokk yi gis ngeen ko wan nañ leen lépp gis ngeen loolu ngeen gis saaku boobu mooy laboratoire ba nag yooyu yëpp muy wax bu la dalee ba pare am na fu nu lay dugal nag foo xamante ni fa la ñuy dagg dindee affaire yi damaa jàppoon sax góor gi du nangu nu wane ko gis nga mbir yi affaire yaa ngi nii. léegi nag lii pharmacie bi fenn fu ne jël na fa benn médicament indi ko mooy mooy siwo yi ngeen gis waaw yooyu mu leen wan fenn fu ne jël na fa benn léegi nag laboratoire baa ngi ne alhamdulilah damaa jàppoon ne sax du nangu ñu dugg fa waaye ñoo ngi nii du dugg ci biir waaw gis ngeen ko moo ngi nii laboratoire baa ngi nii laboratoire baa ngi nii mais góor gi xanaa man dinaa sangu bala maa dem. léegi garab la. waaw sandi garab lañ boole fii. Mhm. mu ngi def fii am na ñoo xam ni kii soixante soixante mooy benn cangaay soixante. Mhm. soixante mooy benn cangaay. Mhm. léegi nag ni nga xam ni moo nit ñi tolloowuñu ay ni nit ñi ëppante doole noonu la noonu la fii ëppante doole liggéey hmm. ak cat ak saytaane ak rab léegi nag hmm. lii am na ñoom tey bu ñu ñëwee soixante soixante litres la ñu sango hmm. añu bu ñu dem ñu ngi sango ñaari cangaay muy cent vingt litres añu bu ñetti cangaay muy cent quatre vingt litres añu bu te bu fekkee maladie chronique la man spécialiste maladie chronique la spécialiste maladie chronique ku feebar ñun du ku feebar fanweeri at ñu ne du wér. ku dëkk Kirène Diass ku feebar fanweeri at ñu ne du naa ko fii ci wàll bi fii la taxaw di ko sango di ko sango wér mën nañu laa jël tàngaay li sang la am nañu sango 20 litres am nañu sango 30 litres am nañu sango 100 litres am nañu sango nan lañu koy sango. lii ngay taxaw di ko benn boo jël ne bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sotti bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sotti bisimilah allahumma salli ala sayyidina Muhammad yéen guri yi ñàkk wërsëg bëreetul yéen ñu ñoo bari teewaan gi ay néegi ñax nag amoon ak pajaas yi ñax léegi ay immeuble fi nekk ak bat daa jël cent cinquante mille deux cent mille dëgg la léegi nag teen yi quatre yaa ngi daw milliards yaa ngi fi milliards yaa ngi mais xale yi ñàkk wërsëg bëreetul mais xale yi umu ñoo bari ak itam sëriñ ci naxaate yéen sëriñ ci ragal leen yàlla bàyyi leen di fóoti jàmb jàmb jàmb rek jox ko waaj def ko ci biir borom bi ma ko nga def ko lii fukki junni saafara fukki junni saafara. fukki junni saafara ba ngi du caax bu fekkoon ne amul garab du du fore léegi nag bu dee cat garab gaa ngi ci bu dee liggéey garab gaa ngi ci bu dee dindi bët garab gaa ngi ci bu dee dindi garab gaa ngi ci amul benn nit bu catul jàpp amul ku mu neex na nga ni gëm naa la waaye amul nit bu catul jàpp amul ndax lii tiri sa am na ci bu fekkoon am war garab bu furi nii moo tax man la kuy faj na nga jàngi garab boo jàngul garab da ngay xaru kuy faj na hmm. nga jàngi garab lii de bu ànd ak dogal bu yàlla bu dee cat bokk sangam lañ bu dee rab bokk sangam lañ bu dee jinn bokk sangam lañ képp ku ko sangul doo doo daaneel ak koo mën a doon nag. mais élèves yi nga xamante ni dañuy jàng rek war a def ay examen yooyu di préparer mel ni biir. examen examen bac examen bala ngaa examen. Hmm. da ngay dindi cat sa yaram dindi liggéey sa yaram dindi daf sa yaram da ngay ku ko defal ko cat jàpp bay de ko bay de ko jàpp de ku liggéey jàpp bay de ko jàpp de ku seetaan jàpp bay de ko jàpp da ngay dindi cat dindi seetaan dindi liggéey dindi rappel soog koo soog koo sang bay de kii mooy limon limon du xaj ci émission bi. Hmm. a jeexal. Hmm. waaye limon day faj rab xobu limon day faj rab ku rab jàpp boo ko suura xobi limon bind ci benn aay ci alxuraan bind ci xobi limon yi boo ko suura mu nekk limon vitamine A la anti antibiotique képp comme biir bu rëy di métti jël ñetti doomi limon juróomi doomi limon boo nga boole ci lem limon limon yi lu may àndal laaj. laaj da jël juróomi doomi laaj nga boole nga togg ko mu ñor boo xëyee nga jël ci kaas mu jëkk ci sa biir bala ngaa dékki bala ngaa tëdd ba mu mujj ci sa biir bala ngaa tëdd ko sa biir bépp xeetu metit ci biir da koy dindi limon day dindi cholestérol. Uh-huh. limon bari na muy faj képp ku koy naan doo xam nga papaay. Uh-huh. papaay bii ñuy lekk doom bu ñuul bi ci biir ku koy naan ku koy lekk doom AVC. Uh-huh. doom yooyu ñu sànni. mu gën la lekk waaw. barakallahu lii nag dañu koo jàng dañu koo doon. après même temps it bëgg ko encore bu ko defee loolu nag. Hmm. nit ñi dañuy ñëw ni ndax lii dina wér am ñu ñëw ni ñun dina wér. Hmm. feebar naa fukki at mu ne dina wér ñi ndax feebar naa ñaar fukki at kii feebar naa fami kii ne feebar naa juróom kii ne man directeur société dañu maa daax sama dañu maa liggéey ba ma yàqu kii ne man kilifa laa woon fay dañu maa yà wàcc nangam yooyu yëpp ay caaxaan hmm. ay caaxaan la boo nekkee kilifa da ngay sangu ku dul sikkar doo sangu doo suur doo saraxe doo dem te góor gu dul naa ne re sa tas Hmm. dégg naa ci rajo nag ku ñëw ci rajo ni euh, ay reen kenn du ko naan loolu amul de ab reen mooy àll ba hmm. àll bu la kenn du ko naan lañ cey bind la ñuy naan reen bi da nga koy ci ndox la cee saf ngay naan tu comprends wax ba àllu lan àll ba kenn du ko naan lañ ci bind ngay naan ab reen da nga koy ci ndox hmm. la cay saf ngay jël naan waaye euh, ab reen kenn du ko jël ko warax da ngay xooj reen bi ci ndox la cay saf nga naan ko loolu moo lay faj góor goo xam ne doo naani ren doo gudd fan te yor jabar ñaari jabar ñetti jabar doo doo naani ren doo gudd fan déedéet doo gudd tey sëy yor na yor yor naa de képp ku am juróom fukki at war ngay naan sab-sab. Hmm. képp ku am 45 ans jëm 50 ans waroo toog ñetti fan yoo naanul sab-sab xobi sab-sab. Hmm. waaw xobi sab-sab complet la doomu sab-sab day faj góor day faj jigéen day faj mag surtout mag surtout mag da koy faj bu gaaw. Hmm. boo xam ne nii mag muy néew doole di di lompañ si di def di wàcc ngay ngay sonn di yuut del naan sab-sab day deñ. kuy dox di sëgg nii del naan saab day dañ kuy dox xam ne say tànk day faral di nagam di métti day dañ day dañ saab saab boo ko dee naan boo ko dee naan da am kattan saab saab boo ko dee naan doo gaaw a màgget saab saab boo ko dee naan doo doo bëri wéri di waaw yi nee nañu mën na suñu waaye man léegi américains yi dañoo créé benn industrie ci Amérique di jël saab saab mbooro di ko yóbbu Amérique ñu ngi jënd fii ci Sénégal saab saab bi mhm. xob bi di ko yóbbu kii am na vitamine A am na vitamine B am na vitamine C am na sirif jom am na manganèse am na silice am na façon bi tamit nekk ci xobu saab-saab kenn mën na ko expliquer. xobu saab est-ce que léegi nit ñi dañ may laaj exactement ku fi bëgg ñëw nan ngay def. ku bëgg ñëw da ngay ñëw fii Tivaouane kër euh, centre de course diggante centre de course ak Kër Matar. boo ñëwee ba ci diggante champ de course ak Kër Matar nga woote ci ban numéro. 77. 225. 29. mbokk yi nag ni ma leen ko wax rek. waaw 121 16 76 121 16. 76 121 11 16 mbokk yi ni ma leen ko waxee képp koo xam waaw képp koo xamante ni gis nga numéro yooyu boo ko mënul na nga ñëw ci alxaaji Mbengue Diop borom ndox TV wala nga woo ko ci numéro 422 77 422 72 62 wala nga woote ci 77 228 99 64 mooy borom ndox TV mbokk yi nag wedd gis bokk ci li ma leen di wan dama koo gëstu ba gis ko doog a ñëw fii wan leen ko xam naa ni mbokk yi waaw ndax laaj nga ma ko mhm. fii la ñuy tëjee émission bi nag. fii la ñuy tëjee émission bi juróom-ñaari junni doomu aadama. laa fajagoon ak juróomi téeméer faj naa leen yàlla wéral leen. Mm-hmm. ah lu ma def nag lu ma jëkkoon moom laay mujjee muy sant Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour sama baay sama sëriñ sama xarit sama xorotul ay ni sama nagu bët sëriñu Baye Abdou Sarr sëriñu Alaaji Kebe sëriñu Khalifa Khoule sëriñu Mbaye Mbaye Fall ca Mbour sëriñu Ambaj. waaw mm-hmm. ah, sunu sëriñ ñun ñëpp di sunu yaakaar di sunu maa ngi ñaan yàlla nag ci barke Cheikh Sidi Mouhamed ci ñaari maqaama yi sëñ Mansour gi mu gën a am yaakaar mm-hmm. muy maqaama tabe gi ak xam-xam dafa am xam-xam ba am ci maqaama mm-hmm. dafa am tabe am ci maqaama ñaari max ci laay ñaan yàlla bala maa dee yàlla na faj ñaar fukki million doomu aadama ndax sax mooy man faj laa mm-hmm. naa faj ñeen fukki at te dama ko doon sama bàyyi mosu yàlla doon faj bàyyam sam ko doon faj maa ngi nuyu waa Tëngéej waa Jokkiri Njaayeen maa ngi nuyu surtout ku jóge ci Njañ Jaw Njañ Jaw di sa baay wala muy sa maam ci tëngéej ñoo suñu mbokk la maître jaw mi dàq fa ci Sénégal jigéen hmm. maître jaw mu ngi euh, sétéo dégg naa hmm. xawma nag xawma ma ko xawma hmm. waaye noo bokk mel na maam nañu ma dàq fa ci Sénégal ñun danoo doon faj suñu juróom-ñaari maam danaan faj waaw ñun tëbu tëb ñëw tiwaal dafa di danoo ñëw tiwaal nag indi suñu mbuusum sunguf suñu man sol jox nu aaya nu boole mbuusum sunguf mi ak aaya bi parce que boo bëggee jëkkër boo bëggee doom da nga wut jigéen ut góor soo ko mën a jur doom jigéen kese du jur doom góor kese du jur doom boo jëlee ay alxuraan yi turi yàlla yi boo ko booleeg sunguf mu mën a faj nit boo bëggee faj nit mu wér dañuy wax ne waxuñu naxaate de waxuñu dóor martu waxuñu kimmi yaaw yoruñu turu eh, eh, dara li ñu yor daal mooy garab ak ay alxuraan lañu am mais am na ñoo xamante ni ñoom garab duñ ko bëgg a naan mais dañ koy bëgg di sangoo est-ce que loolu nit mën na ko mën na cee faju ba wedd garab wedd nga yàlla mag mu toll li yàlla du liggéey yàllaa ko liggéey kenn du weddi garab da di ko naa gëm naa alxuraan mi gëwuma garab loolu mënul nekk de yàllaa bind garab mango yàllaa ko bind rat yàlla ko bind sixaw yàlla ko bind mbër bofu yàlla ko bind sab-sab yàlla ko bind soancu yàlla ko bind mbante yàlla ko bind ngun-ngun yàlla ko bind limon yàlla ko bind nawe yàlla ko bind naaju waaw lu tax ñi reen yëpp ñu ne dañ reen baaxul bu kenn naan ñun reen baaxul waaw léegi am na bu dagan am reen bu araam jinjër monde bi yëpp dakkoon jinjër baax monde suñu waay américain yi sapon yi français dakkoon jinjër waaw lu tax ñu d'accord ni jinjër baax na d'accord ne carotte baax na d'accord ne naawe baax na te ñu ay reen lañu waaw ñu ne reenu xay baaxul reenu fu baaxul reenu xax ci moo dàq dindi seytaane xaax coy lépp luy dindi seytaane wala tëju nit ko umu am juróom fukkan mënta mënta am dara dara xaax coy boo ko boo booleeg ay alfa boo ko sangoo mu ubbeeku lu tax xaax coy day faj reenu limog day faj reenu daxaar day faj reenu mbut boobu day faj reenu njàndam day faj reenu mante day faj reenu saab saab day faj reenu bisaab day faj reenu kullu kullu faj reenu tullu faj kullu kullu faj kullu bokkul tullu kullu waaw kati jànkume reenam day faj moo gën a gaaw ci luy faj rab wala seetaan wala jinne kati jànkume bokkul kati jantaabale kati jànkume amul fii amul ka mais reen bi daa am lu muy àndal reen bi dafa am reen bi na yoo xam ne day ànd ak ay alxuraan am na reen yoo xam ne moom rek may ànd am na reen yoo xam ne day ànd ak reen di nga bëri juróom-ñaari reen mu soog a faj am ñoom da nga jël benn reen mu a faj am ñoom da nga jël juróom-ñaari reen booy ay alxuraan mu soog a faj loolu loolu jàng nañu ko waaw dañu ko jàng li ma la wax ni spécialiste laa ci maladie chronique ñëw mën naa jël téeméer nit fi ne par jour te amoo benn moyen bi ma amoon moyen mën na ma jël mille personnes par jour parce que bu ma fi six hectares tabax fi téeméeri sangukaay man te ni may fajee kuy julli noonu laay faje ku dul julli ku dul jullit waaw ku dul jullit ku dul julli feebar nga ne doo ma faj boo dee dajeeg yàlla yéefar ñu bari bu ñu dem ab la tax na ngeen ku dul julli ak faj ni ma jàngee kuy faj jullit noonu laa jàngee di faj ku dul julli ak jigéen ju feebar mais est ku dul jullit war nga koo faj ci alxuraan déedéet doo ko alxuraan doo ko jox tur yàlla doo ko jox salaatu ala nabi doo ko jox talsam ku dul jullit garab ngay boole ak garab ay fam juróom-ñaari garab yoo xam ne wala juróom-ñaari képp ku dul jullit boo ñëwee boo ko joxee mu sanga ko juróom-ñaari fan naan ko juróom-ñaari fan lu ko jàpp da nga juróom-ñaari reen am na am na juróom-ñeenti reen am na fanweeri reen yoo xam ne boo ko boolee jox ko ku dul julli bu ko naanee sangoo ko juróom-ñaar lu nekkoon ci yan bay dañ wala jigéen ju am doom seytaane jàpp ko wala mu feebar te amoo doo jox ko am jox turu yàlla garab nga jël da nga jàng garab yi ñu koy faje loolu nag koy jàngi nag doo ko jox turu yàlla bu jigéen ju am doom wasin wala mu gis baaxub jigéen te léegi feebar loolu la nga koy def xoolal ban na ko tëdd Ndakaaru wala mu tëdd kees wala mu tëdd Tamba. wala mu tëdd Tivaouane gii wala mu tëdd lay dee feebar booy rey nit am feebar yëpp ay yëpp ay wér bëgg gën bëgg suñu Mansour nag. ñu di feebar sàngam eh, képp ko xaar mu dee mu déedéet d' accord ma. Hmm. bu feebar andi leen. moom waaw waaw sëñ Mansour laa. Hmm. dama ne bala maa gën a bëgg sëñ Mansour. Hmm. ñu di feebar sàngam du wér. feebar yëpp ay wér. waaye nag matal moo amul garab waaye feer ba am na garab séeréer nee na matal moo am gàllaaju dee amul mais gàllaaju gudd fan am na séeréer man séeréeru saafeen la saafeen waaw ñun ñu ko bokk ci giir gu ñaan laxe laxe waaw laxe xeet bu xeetu laxe lañu bokk mais mais ñun dañuy faj hmm. faj bi nag du question dañoo xiir di faj déedéet da ngay jàng garab yi jàng tur yàlla yi mu àndal jàng ay alxuraan yi mu bari soog commencé faj sa numéro waxaan ma ko 77 225 225 29 29 vingt 50 ak ban 76 76. 121. 121. 11. 11. 16. 16 mbokk yi ñoo ko gisandoo numéro yaa ngi noonu mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu képp koo xamante ni bëgg nga ko jot na woote ci ñaari numéro yooyu ma leen jox bi ci des mooy bi ci suuf sama numéro la 422 72 62 yooyu ci kaw ma leen jox mooy ay numéro am mbokk yi numéro yaa ngi noonu. képp koo xamante ni bëgg ngaa gis li ma gis ba tax ma ñëw fi tey nanga woo sama góor gi nga saafoonte ak moom lan mooy si dernier moom lan ngay tàggali ko. li may tàggal ko mooy sant yàlla. Hmm. sant yàlla gërëm yàlla. Hmm. di la sant yow mii. Hmm. ah ndax ndox TV ndox TV Fatabaarkalla yàlla na la yàlla def nga dem ndox. di dox nag ndox muy dox. yàlla may la ay ba nga am sa télé bopp. amiin yaa la aalamiin. ndax euh, woyof nga. biig la dañuy gis rek. nga jàll ma jël laas ma ci. Hmm. andi li ma fi indi nag mbokk yi de mooy damaa dégg ci doomu aadama yi ku ma wax ni ma am na lu mu seq ak moom mu def ko te man lu ma dégg ni day jariñ waa àddina dinaa ñëw wan ko waa réew mi looloo waral tey ma bàyyi sama yëpp ñëw fi jàkkaarloog moom. te bi ma ñëwee am naa yu ma gis am na yoo xam nag wanewu ma ko ndax dafa lànk ni du ma ko wane waaye yi gën a garaaw wanewu ma ko. yi gën a garaaw nee na bugg koo wane sëriñ bi gis ko di ko wax ni ko la moo tax nga génne ko ci internet bi waaye wan naa leen yi ma leen wan yi gën a garaaw ngi fi nag ni ngeen ñëw jëm ko découvrir waaw acca góor maa ngi sant yàlla. li ma defoon la la ma ko rek muy xalif général Tidiane mi nga xam mooy suñu xalif général. Mm-hmm. di sama xalif général man. Mm-hmm. sëñ Seydi Babacar Mansour Seydi Babacar si Mansour. Mm-hmm. maa ngi koy ñaan yàlla gudd fan di ñaan sama sëriñ sëriñ Cheikh Tidiane si Mansour. sëñ Habib sëriñ Pape Malick di ñaanal sëñ Pam sëñ Moustapha euh, Jamil sëñ sëñ Mansour soxna Ayadi Si ak yaa euh, Sofi sama mag samay mag sama mag maa ko ñaanal ak gudd fan di ñaanal nag jullit yëpp yàlla na def jàmm fii ci Tivaouane def ko jàmm kër jullit yëpp defal jàmm njaboot seen xaaj Malick defal lu ko def ko njaboot yëpp di ñaan yàlla nag lii may def li ma ci li ma bu ma cee juumee maa ngi koy jégalu ma wax bu fekkee wax naa ci moo wax maa ngi koy jégalu man daluma ci kaw kenn xeebuma kenn xeexuma kenn li may ñaan yàlla daal mooy jàmm rek jàmm laa bëgg bu ma juddoo ba te ko na xam man am naa Tivaouane ñeent fukki at am na ñoo xam ne tey la ñu mos a génn am naa Tivaouane quarante ans ñeent am naa am na ñoo xam ne xamuñu ma. Mhm. Assane si ma daan jaay marché nag kaaneeg poobar mooy ñëw tey jii di faj waaye nag lii ma daan leneen dañ ma ko jàngal mais lii dama ko doon li may ñaan nag mooy yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal jàmm président de la République Sénégal yàlla nga defal jàmm yàlla na yàlla defal la jàmm yow defal ma jàmm defal ko julli yëpp ci barke a Muhammad. tabarakallah tabarakallah jërë ngeen jëf mbokk yi.